coow li nga xam ne lëmbi assemblée nationale muy coow député yi passeport euh, diplomatique bi man jot naa lii sa benn kii post euh, ci internet bi ngay ngay ngay wax ni nañu supprimer assemblée nationale su ma jumulee loolu. Euh, tax ma wax ko moo di affaire boobu dafa grave grave boo xam ni kenn waru ko nëpp nëppal kenn waru ko masla Sénégalais yi dañu war a xam dëgg ji ci biir li xew ci biir war nañ ko xam c'est très important. de députés député du ñaari député du ñetti député la ñu def enquête bu wër boo xam ñetti institution ñoo séq euh, passeport diplomatique de l'Assemblée nationale fa le dossier yëpp di ministère des affaires étrangères la présidence de la république suñu de faire signer la convention de Vienne 1961 1963 convention président de la république ratifié président Léopold Sédar Senghor ratifié assemblée nationale nangu Décision texte député à droit passeport diplomatique député a droit Nous c'est que dëgg nañu seen tànk ci biir loi bi amul sax dérogation parce que dañu vous faites le président assemblée nationale le président euh, conseil économique social et environnemental président HCCT le ministre de l'économie, ou le ministre ci gouvernement bu ñu demee ba nekkatuñu ko amuñu droit am passeport diplomatique mais président mën na def dérogation pour jox leen mais gannaaw ñooñu amul député beaucoup. ci jabaru député ci président de la république bokku ci doomu président de la république parce que passeport diplomatique mais c'est un statut mooy représenter Sénégal à l'extérieur, mais da ay à Dubaï wala wala France ñu amee seen passeport diplomatique dem jënd ay marchandises di Sénégal mais image du Sénégal moo leen affaire diplomate européens yi nekk fii diplomate allemand français Hollande Angleterre qui ci dem vacances ni yaa ngay dem vacances Brésil wala yaa ngay dem vacances euh, euh, euh, ou wala wala wala wala wala Afrique Éthiopie wala feneen le droit voyager avec ce passeport diplomatique da ngay voyager avec ce passeport personnel parce que diplomatie boo nekkee qui fonctionne, nga koy def boo demee réewum Sénégal nga fay donc il faut ñu def enquête pour xam 165 députés yi nekk Sénégal kan moo ci am passeport diplomatique ak kan moo ko ci amul kan la ci jabaram am ak kan ci je pense que du benn du ñaar du député la grande majorité ci députés yi et ça c'est illégal et c'est l'Assemblée nationale le mooy voté loi yi nga xamni moy mooy voté loi yi wan dëgg tànkam ci kaw loi ça c'est extrêmement important yemul rek ci ay Bougazeli yi ak ay ay ay ay ay euh, kii sal comment dirais wa ak ak ak ak Sané ak ñoom jeexul képp ku am passeport diplomatique nek député rek yaa ci biir boobu alors motax tax ma nañu nous de l'Assemblée nationale parce que nous avons assemblée nationale impliquées dans ça ay vice président ay député mais c'est grave bon, ça mais vous ne également passeport diplomatique donc 2 millions 3 millions 5 millions mais le ni ñu def audit assemblée ni ñu dissoudre nationale ba pare ñu laaj kan mon passeport diplomatique ñu wax ko sénégalais parce que du rek député yi du la gis benn commerçant wala ku passeport diplomatique en l'espace de trois jours C'est très grave C'est très grave et le président de la république est interpellé sur cette question duñ ko nëpp nëppal duñ ko nëpp nëppal sànq sa ñu wax ne aussi est-ce que du deux poids deux mesures maa bi ko comparé par rapport ak affaire yi rappeurs yi kilifa ak Simon nga xam ne dañ la teel a kii si enquête bi teel a jàpp est-ce que tamit amul comme ñu koy ñu koy ñaaw ñu koy ñaaw naan deux poids deux mesures la ci wàllu justice bi. mais du sax deux poids deux mesures deux poids quatre mesures la parce que euh, euh, euh, li ma gis en tout cas ci vidéo yi mais c'est du flagrant délit flagrant délit bu la ci gendarmerie jàppee. amatul immunité parlementaire dañ la war jël yóbbu ci kaso ba directement te man li ma gis ci audio bi vidéo bi kon bu dee dëgg mais kooku député boobu dañ ko jàpp en flagrant délit et c'est la gendarmerie qui l'a pris en flagrant délit te immunité parlementaire yu député flagrant délit bokku ci boo sàcc ñu jàppale ci tàng tàng bi mais amatul député dañ koy teg fële kii dañ ko jàpp la main dans le sac ba pare ñu naan immunité parlementaire y a plus d'immunité parlementaire warul am également liberté provisoire ñu ñu jàpp am na lu leen tuumaal bu dee dëgg ñoom itam dañ leen bu teg ci yoon teg leen mais mu bàyyi ki nga xam ni kii jàpp nañu ko en flagrant délit koo xam ne kii moom jàpp ñu ko en flagrant délit ñu tëj ko kii ñu bàyyi ko se c'est du yoon du dañuy daaneel tamit ci wàllu actualité muy surtout dundu gu cher gi la vie nga xam ni temps sax am na ay activistes yu si doon manifester ba ñu jàpp leen yéen en tant que parti politique naka ngeen jàngatee la cherté de la vie nga xam ni dund gi dund gi cher na loyer bi cher na sénégalais sonn nañu yéen ba jàngal ngeen ci am daal.